xanaa di sant yàlla rek di julli ci sang bi Seydina Mohamed di wax yàlla mu daan def defaat na ko rek moo fi jële woon mag kon du fi bàyyi kenn te dee mooy dëgg nga xamante ni ñëpp ñoo ci d'accord ni loolu dëgg la kon mu ngi sant yàlla baax ci def gi mu def du ma ni bànqaas moo fi jóge dama naan guy gu rëy moo daan parce que li mu doon représenté ci umma islamique bi moom rek ko mënoon Serigne Ablaye Euh, bi muy toog ci xilaafa gi kii toog sama wet bàyyam la remplacé woon kii doomam Alassane Laye la mu tudd ko Imaam Saxeer waaye juróom la remplacé woon toog moom ñi ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ko jaale umma islamique bi yëpp yëpp yëpp di massawu jullit yàlla yi ñi dul jullit sax ñu ngi leen di massawu parce que sëñ Ablaye sëñ Ablaye ñëpp la woon sëriñ Ablaye euh, nee na bi muy dem Touba gidrong bi Mbàkke la yem jamono yi sëriñ Fallu Mbàkke mu màggal 42 fois màggale ne ko kon xam na Touba certes bu ñun ñëpp rayoon ci moom jafe-jafe du ci lislaam parce que moom dong ngay ñëw këram fi fekk fi ku mu tuddee Cheikh Mbacke te dëkk fii nag nga fekk fi ku mu tuddee Cheikh Tidiane Al Maktoum te dëkk fii nga nga fekk fi ku mu tuddee sëñ Mansour Bal xaw mi ku mu tuddee fii nga fekk fi ku mu tuddee Alaaji Ibou Sakho sëñ Fallou Mbacke sëñ Moussa Basir lépp mi ngi ci biir kër sëñ Abdou Khadir Jeylaani kon islam bi yëpp ñoo ko ñàkk ba waa jàngu ba tamit ñu ngi leen koy jaale kon Euh, lu rëy daanu na tey ci islaam du ma ne ci laayeen ci islam umma islam bi laay wax yàlla nu yàlla taas ci barkeem yàlla nu yàlla taas ci barkeem te àllaaxira doon nof laayam fii ku matal rek dem toog na fi ñaar fukkat bi muy wuute sama bayraan keroog dafa ni wax jeex na maa ngi jëfi jëf jooju nag ca la doon jëfe waxul ak kenn ba ni mu uy jee maamam tey ci uy bu sedd guy sonnalul kenn kon ñu ngi ñaan ci barkeem yàlla yàlla taas na ci barkeem di jaal jàll nag euh, sëñ Mountakha Bachir moom it yàlla bàyyi ko fi di ko jaal sëñ Mbaye Sy Mansour ak tous les xalifs généraux ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax parce que sëñ Ablaye sëñ Ablaye addina bi yëpp la woon nit ñi nag ñoo war a di roy ci mag ñu baax ñi parce que bëri na Sénégal bu ci am succès say say mbokk ngay noggatu ku ci am succès am doole xaalis say mbokk ngay noggatu boo ku seet li may wax di nga xam ne dëgg la mais sëñ Ablaye succès boobu da ko defaroon këram musul bëgg ku dox digganteem ak ay magam dawal na leen ba nekk ba nekk xalif général de Layènes tey sol na leen ba nekk xalif général de Layènes tey kooku moo fi jóge tey yàlla nu yàlla tas ci barkeem yàlla dimbali nu ci barkeem gannaam yàlla na lewet lool lool te saytaane soronu feebar bii may ñuy dégg ci àddina bi euh, yàlla na ko fi yàlla jëlee mais feebar yu yu ko rawang fii yu ko rawang fii te ay invisible la feebaru jëwaate nekk ci tiktok bi di saaga nit ñi feebar yooyu gën a bon di yàq doomu aadama yi toog nit enregistré ko def ko ci réseaux sociaux yàq derem nit def mu neen nga fexe ba nax ko jël ko yàq ko derem nan da ngay ut bës yooyu yëpp ku ko ciy def ëllëg di nga dajeek yàlla yàlla mu ngi filmé yi nga xamante ne caméra yi du paan kenn du wax defaru leen malaaka yaa dàq film te lu nu film ñu mi nga ñu téye ku ñëw yow ma xiyam daan la wan kon na nit ñi dellu ci loolu ragal yàlla mooy ñu defar suñuy gannaaw ragalante lu waxante lu baax bëggante lu baax te bàyyi iñaan geeg soxor gi nekk ci réew mi suñ ko bàyyi rek lépp lu nu ñaan dinañ ko am kon yàlla yàlla def jàmm ci réew mi lu dul jàmm jàmmaa ko gën yàlla yàlla defal nu jàmm ci réew mi. am na tamit loo xam université la woon li may fàttali ki njaboot gi war ko wéyal mooy ku ku seetaan euh, ay vidéo su ma saan toog appel danaan jox leen ma hymne national Touba jox leen ma bu jox leen moo bu cere ba ñu ñii di wax ak yow man mii sax kii sax man na ko su bàyyi su ma su ma neexoon yooyu yëpp dinaa ko wax tey loolu marqué woon nañu ci dundam ak lan bëggoon ay bëggoon ay mbokkam li gën a jafe wax naa la que tout à nit ku yor doole am succès ba pare succès bi nga gérer ko yombul parlons sérieusement ne ñu wax dëgg yombul Séblaay li ma marqué gën a marqué ci moom moo gën a yaru ñëpp gënoon baax ñëpp gën a dal ñëpp mënoon fitteeku ci kaw fitteekuwul mais mi ngi doon seet fan lay baaxee ak fan lay rafete lii nii nit ñi am problème am moom mosu ko am problème damay dégg ñu naan dialogue islamo-chrétien ma juste dama ko contre amul parce que ñu nag catholiques yeeg yi amuñu problème jàmm lañ am raison pour laquelle su seen événement yi ñu dañuy jël ngalax di ko mayante bu tabaski ñëwee ñu mayante ay ay ay xéewal ñun kay tariixa yi ñoo war a bàyyi sànni nekk ci TikTok bi bu sëriñ bi waxee kee saaga ka taalibe saaga ka il est temps sëriñ si génn dafa mel ni yenn sëriñ yi ñoo questionné yi yenn taalibe ñuy saaga waate sëriñ yi war a génn oo seen taalibe neen bàyyi leen seen wax ji parce que bu ñu ko bàyyiwul fa mu jëm du ko du arrangé kenn ku ne gëm nga la nga gëm waaye nag yàlla moo ni wax tasibu bi xablilaay jami an wala tafarraxu islaam benn buum la nga yàllu leen ci bu leen taqalikoo loolu marqué na ma ci sëriñ Ablaye torop torop torop ak lan bëggoon na ay mbokkam ak lan musul bëgg nit ku nu naan amul dara mu koy wan gannaaw da lay yóotu teg la ci këram doomam yi xam nañ li may wax fa mu daan añe ña daan ña mu daan añandool da boo leen xoolee dañ naan ñooñu seen xel yi baaxul ñooñu la daan jël di leen taf ci wetam sëñ Ablaye lijjantuloon kii am na alal kii am na kee alal la moo doon nit kese tout court boo nekkee nit mu jël la taf la ci boppam jikko yooyu lañu war a jikkoo te xam ni te xam ni sëriñ baa ngi koy wax démb nañu takk xam ni waaj dem jot billaahi wallaahi taalaay ku ko bëgg ku bëggul muy xale yàlla day rey xale day rey mag day rey rey jigéen day rey góor ku ci waajul waaj bi du dara du laxas sa saak tekk da ngay takk sa ëmb takk sa ëmb mooy lan boo daawul julli del julli boo daawul wax lu baax del wax lu baax te ngay def aw wiiw te koo gis yéen a ko jàmm parce que wallahi azim ku ci ne fi taxaw xam nga sa jour anniversaire sa birthday xam nga ka waaye damay lancé àddina na ma ana kan wax bisub deem bis bii nii di ko def ay annonce naan gars yi alxames laay génn àddina amul fen kon ku xamul ne dëkkoo fa da ngay ñibbi da ngay defal sa ëmb ëmb bi nag fexeel bu baax bu rafet boo demee dooru sa yàlla waaye na ña nga xam ne bu nu dee fa nu jëm xam nañ ko parce que ay yàqkatu mbokk lan ay yàqkat lan yàlla yàlla musal ci loolu ci barkeb Seydi Seydina Imaam ma Mahdi ñu ngi am mbégte bu baax a baax. dafa. doon faral. tey tey jii. démb waaw mën na nekk loolu du loolu du du kii ci kër gi. du ci kër gi bàyyi laay puusoon géej te fii la ko puusé woon te ba mu koy puus benn baaraam la ko puusé non seulement ba mu koy puus ànd ak mbok yi dañ doon reetaan euh, lu tax mbooloo ma bëri woon parce que nag dëgg la lu toy ni géej nit naan fa laay uti kër effectivement dañ lay teg dof dañ lay teg dof ñaara ngi amoon na yoof ba muy joxoñ géej gi di ko puus dañ doon wax dafa dof dañ doon wax dafa dof mais keroog bi mu tàllalee baaraamam bu sell boobu géej gi àndu na boo demee teen bu dàq kiran ma nga fa su aj màkk jotee doo gis ndox moom mais bu aj jeexee nga xool ndox mi ñibbisiwaat kon géej gi bu randuwaatee rek noonu rek la mën a demee yàlla yàlla taat ci barke yi rek salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh